maa loolu moom wax ju yàqu la kilifa diina yi ay ay ay ay responsable lañu ay kilifa lañu ay citoyen lañu am nañu ñu leen déggal amal ñu am nañu leen déglu am na lu ñu bëggal am na fu ñu bëgg a dëkk bi ak réew mi kon euh, jàpp naa ne bu ñu nekkee ci liste yi dañ cee war a ne te ñun jàpp nañ ne képp ku président tab ngay kilifa diine nga ne ci liste bi dañ laa war a taxaw jàppale la jàppale liste ba liste bi jàll ndaxte it loolu du tey yàgg na am Sénégal loolu kenn du fa jël tey dafa nekk une réalité objective boo xam ne kenn mu si dara te jàpp naa loolu nekk lu yàq politique bi bi au contraire dafay gën a baaxal. sëriñ si war nañoo jiite lis ay liste li tax ñu war koo jiite seen dëkku maam lañ nekk seen dëkku maam lañ nekk demuñu ci dëkku maamu kenn kon bu nekkee seen dëkku maam ñuy liggéey ci réew mi li nit ñiy def ñu di ko def yàqaluñu kenn bariwuñu wax duñu tooñ. war nañoo mën a jiite ay liste ndax nun ci tey kenn kuñ ci jëloon sab sëriñ teg doo wax kon bu jëlee suñ naataangoog sëriñ teg ko duñ mën duñ mën lu def ko niñ def suñu sëriñ rek fu mu waxee rek ñu soo incha allah. li ñu wax nag ci kilifa diine yi loolu wax du yàqu la parce que fii ci Sénégal fii ci Touba président de la République bu fi nekk ànd ak xalifa général des sëñ Fallou mi ngi àndoon ak Senghor te boobu Senghor du julit Senghor jàppale ko ci jumaa ji Abdou Diouf ñëw ànd ak Serigne Abdou Lahad euh, Abdoulaye Wade ñëw ànd ak Serigne Saliou Macky Sall ñëw ànd ak Serigne Sidi Mokhtar jàppale ko ci liggéey boo xam ne xalifa yi fi jiitu woon am na ci lu bari dañ ko bëggoon nisir ko te defuñu ko Serigne Sidi Mokhtar ñëw def ko mu jaar ci président Macky Sall ndax Ila Touba bi tey ku ne woon pëkk-pëkk suñu waajur yi ci yombal xiyam ne leen Ila Touba bi defar nañ ko weesu na Thiès duñ ko gëm. ñoom bu ñu ko amoon jël waaye yàlla dogal na ci suñ camp la nekk kon boog nañ ñu ko nangal xam ne déjà am nañ defet te match bi tàmbale